ma ne yàlla moo def 2019 gannaaw bu fi référendum amee senegal xool sa jaar-jaar say nawle xool sa jaar-jaar ñëpp nga yaa ñu doy Sénégal fal la ca anam boo xam ne yéem na ñu ànd ak yow yéem ñi contre la yéem waa Sénégal ak Afrique ndeke li olof di wax naan bu njaab yàggee bu njaab yàggee gawar feeñ bu njaab yàggee gawar feeñ Sénégal yépp di dégg ñoo xam ne yàkkamti na ñoo xam lii Sophocle di wax la réponse actuelle à une question ultérieure ngeen ànd ak dal monsieur le président de la République ñii ñëw fii yow sàkkuwoo gisee ak ñoom ñi ñëw fii di 474 maires ak 37 présidents de département ñoom ñoo bëgg fi Sénégal toll ñu wax ak yow seedaloo ko waa Sénégal seedaloo ko adduna bi olof Njaay daf ne bu buum teengee dees ko yeew ci bopp yëkku kuy monsieur le président Alhaji Macky ñun ñi bokk ci Benno Bokk Yaakaar grande coalition bi ñi nekk maire ak président département ak ak ngeen seede ko ñi nekkul maire seen dëkk nekkul départ président département seen département te ànd ak yow ñun ñoo ne fi réew mi toll fi réew mi toll suñu digganteeg yàlla suñu akulaay taala mooy ne yow lañ soxla Sénégal yëpp ko mooy président liñ bëgg a wax Sénégal ko mooy soo soxla woon sa bopp pour wane leneen feneen soo soxla woon sa bopp pour bi feneen su la àdduna maa ngi lay fàttali wax ja doomi cheikh al islam alaaji Ibrahima Niass waxoon ki ko waxoon mooy Baaba Lamine Niass yàlla na fi yàgg te wér mooy rakki cheikh Mamadou Maay moo waxoon ne keroog bu Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima génn àdduna nga am mission dem bitim réew am ñuy ruumandaat mu ne président makki sàll li ko yàlla dénk suñ ko waxoon ne yonent yàlla Muhammad day ñëw Kaolack waaye intérêt Sénégal war ko yóbbu Amérique wala Chili moom Macky sàll fi ko yàllay xaar mooy mu dem Chili kon nag ñun jàpp nañ ne fi la yàllay xaar mooy nga nangul say bokk nangul sa njaboot wat say loxo encore jébbalat sa bopp parce que loolu sacrifice la monsieur le président Macky Sall yow soxlaawuloo kenn tiituloo lenn ñaawuloo amuloo jikkooy ragal amuloo fitu ragal ku xam sa juddu xam sa jaar-jaar xam sa taxawaay xam ne amuloo la ragal waaye nag ñoo dafa am loo moom amit ñun luñ moom